mbokk ah, ñu ngi toujours ah, fii ci ah, buntu poste bu Njaareem donc toujours di continuer li nga xamante ne bi mooy weekend culturel bi centre culturel organisé ànd ci ak cinq raisons buy ay Kédougou ànd ci ak Louga ànd si également ak fatik ànd si également ak Saint-Louis donc ñu organiser ko ci collaboration FESNAC mu festival national des arts et culture

ci culture ci territoire ci walum euh, local bi nek fee muy maire muy responsable yëfa nek ñep dañuy taayale sax juk dem di leen wax ne dañuy def nangam yaakaar naa ne li so demone laaj leen ko ñom responsable yéeguñu ko parce que gis na na bi ngeen di presté euh, mine de rien def gën fi ay 4 voire 5 tenues gis na na ay logistique yu bëré bëri gën utiliser donc moy yoy fan gën koy jëlé dañuy am ay bonne volonté yo xam dañuy dem ci ñom ñu bolé ñun timi suñuy dem ak suñuy dakar

doon def prestation léegi prestation bu am solo boobu bu neex boobu Mahfous ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax jërëjëfati kontaan nañ ñun tamit kontaan nañ si yéen tamit ñu ngi ñaan tamit seen li ngeen xam ne moom ngeen def muy seen télé bi na ko yàlla yóbbu si télé yi gën a mag si Sénégal si monde bi ci barkeb Serigne Touba jërëjëf Mahfous rafet na donc à vous les studios il kanyilango adoga megabat jaminana kanu il kanyilana adoga megabat ameng jaminana kanu il kanyilango adoga megabat ameng jaminana kanu il kanyilango adoga megabat kamirana kagalua il kanjalango aduga megama kameng chaminana kagalua il kanjalango aduga megama kameng chaminana kagalua il kanjalango adogamme ga batamegi chaminana kagalnu ayil kanjilango adogamme ga batamegi chaminana kagalnu ayil kanjilango ñu ngi fii ak euh, chef de délégation bu Kédougou du monsieur Abiboulaye Niang monsieur vos impressions par rapport à l'organisation ak déplacement bi ak li fi voilà permettez-moi tout d'abord de saluer donc euh, euh le comité d'organisation en tête euh, donc euh, Madame Diallo et euh, la directrice du Centre culturel régional de Kédougou. Voilà, je me félicite vraiment de cette organisation qui a été vraiment une réussite pour aujourd'hui. Et nous sommes vraiment ravis d'être aujourd'hui parmi, parmi vous. organisation bi ak pour organiser c'est validé guñ mais ci loolu la nek par rapport à hébergement bi ak tout ce qui suit ki dugg du fi déplacement bi euh, mba euh, jafewul trop ak nan ngeen di dundee aar bi foofu ak est-ce que les populations suivent. c'est vrai que ni yombul parce que Kédougou dafa dafa dafa soré donc danaka boy xol Mali la gën a jege euh, wala ak Guinée mais ci Sénégal la bok donc fofu danaka li ni dundé aada ak cosaan donc c'est une population très ancrée. Euh, donc euh, aux valeurs culturelles raison pour laquelle donc euh, as new ci tiara nous raison pour laquelle troupe gis xam ngeen ni donc zone bi nga dañ ko UNESCO de ko patrimoine mondial donc zone bobu nous zone dañu conserver vraiment culture seen aada ak cosaan seen solwaay ak lépp lépp li nga xam ni moom la lañ fi présenté sànq ci kanamu public ne mu mel ne lu mel ne seen culture ak seen solo comme ni nga ko waxee dafa mel ne Guinée la gën a jege si Sénégal yow en tant que en tant que bu duma wax sénégalais sax mais ñaa c'est plus central que là nan nga koy dunde foofu ak nan ngeen di dunde foofu culture ba ak euh, nekk bi xam nga culture moom daanaka dafa yaatu waaw euh, pays peuple basar daanaka ah, du Kédougou kese la yem booy seet jéggi na sax frontière wu donc Sénégal mën nga leen fekk feneen mën nga leen fekk feneen donc euh, li ñuy wax ni culture ci boppam mën na doon sax intégration africaine bi gars yi di wax doon daanaka loolu moom mooy mooy force culture Kédougou pratiquement zone bi nga xam ne euh, Guinée mi ngi fa Guinée ñu ngi fa Euh, euh, Malien était euh, une communauté malienne c'est vraiment un, pôle culturel donc raison pour laquelle c'est une richesse culturelle un potentiel culturel et naturel

merci beaucoup à moi Abibou chef de délégation pour euh, Kédougou et également directeur du centre culturel de Kédougou Nous sommes le de la merci et bon retour